salaamaaleykum mbokki internet ñuy suivre à travers des Prod Média mbégte ak contentement la ñuy ànd ak yéen saa su nekk di leen indil ay xibaar yu wér te wóor ginnaaw coowal inauguration stade Abdoulaye Wade ba amoon na fële ca Diamniadio indi woon ay polémique ci diggante Wally Seck famille Youssou Ndour ak waa Subatel ñëpp jàppoon ne affaire bi sabotage la cannoo ne la njiitu réew mi woo ki nga xamante ne moom mooy Wally Seck pour mu def concert ci qualification coupe du monde Sénégal Égypte coow li jàmm rek ci Wally Seck ginnaaw inauguration boobule kii di Lirou Diane daal dinay porter plainte kii di Diaw Ketchup bokk ci influenceur yu ñu ràññee fii ci Sénégal yëkkati ay kàddu yu doy waar teg ko ci deram waaye kii di doomu Lirou ah, nee na moom papam bu bàyyee sax moom du yi xam na fréquentation jaw Ketchup te dana ko fekk ñu daal di jàmmarloo bu ah, ñëw fii ci DS Prod Media indi fi ay révélation yu doy waar yoo xam ne xajul rek sax wax naam ci nopp waaye nag nekkuñu fi rek lu dul indi ay information nee na kii di euh, Wally Seck le Faramareen le chanteur du peuple daal dinay takk takk suuf te nekkul kenn ku dul rek Astou nekkoon nekkoon mi Sénégal li leen indiloon tey ci biir euh, li xew ci réseaux sociaux yi sur DS Prod Media euh, bu leen fàtte rek abonné fii ci chaîne bi daal di activer cloche de notification bi di ngeen jot ay leeral ay xibaar fii ci Sénégal ak bitim réew